julli ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad dañuy nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi teew di dalal ki nga xam ne mooy le président du mouvement Natangué Sénégal di ci teg ki nga xam ne mooy l'homme intègre expérimenté di suñu leader monsieur le président Abdourahmane Diokhé teg ci la présidente bi nga xam ne mooy Adjaratou Ndeye Ngam ànd ak secrétaire am bi nga xam ne mooy secrétaire mouvement bi waaye nag di fat ndoy ak groupe nopp sëy badee association sëy badee di le président du mouvement jeune parle pour la jeunesse Oumar Fall mais nag di nuyu l'ensemble des jeunes di ci jiital Yoro fay ak Samba mi nga xamni ils sont l'infatigable du mouvement du nuyu ki nga xamni nak tabarakallah moy Ndoukoumane production am na bés bu mu la jagleel président bientôt dina ci ñëw Monsieur le Président, nous avons l'honneur et le grand plaisir de t'accueillir ici, chez vous, ta localité, bi nga xam ni fi nga xam ko Monsieur le Président xam suis un ma me mbégte taxaw je mais je ma je fi nga je suis ma neex Monsieur le Président tous soo chaque année association Asper Sénégal bi ma jiite au service social nga may ma ay cadeau valeur 1 million jaar la ko ci sa soxna Ndeye Awa moo koy. Cheikh Alassane Sène du nuyu le président Abdourahmane Diaw Cheikh al président Cheikh Alassane Sène amna naa trop lu ma naqari tey xam nga lu ko waral da nga waro a teel ñu fi dafa feesoon del del del dell. Abdourahmane Diaw. sa liggéey rafet na man nga délégué li ma jiiteel ma xale ma dugg ci koñ fu ma dugg mu rafet loolu allah sa bi nga ak cheikh bi ci def jam, waaye nag xale yi nga àndal kenn keroog ba nga taxawee génn ci local yi ñu ànd ni la ci euh, Abdourahmane Diaw naka la def nga ni ma ma ma bés bu jotee dinaa la wax ñu toog di ko déglu di ko déglu di ko déglu ba benn bis mu wooñu keroog bi mu ñu wooyee dafa ñu ne gis naa ko ma doy sëkk koo xam ne jikko yi ma doon seet yëpp gis naa ko ci moom ma bëgg ànd ak moom ma ne ko ñun ay soldat lañu rek yor suñu ay fetal soxnañ ko nag soxnañ suñuy fetal foo ñu joxoñ rek foofu la ñuy dóor bal bi mais parce que vous êtes des hommes de valeur d'une dimension intellectuelle remarquable des hommes courtois sereins serviables des bienfaiteurs et par-dessus de tout des hommes de terrain vous êtes des hommes de Serail. Que tout le monde, que toutes les coalitions ont, eu, à vous cotiser. Mais vous avez dit uniquement pour servir Face le Sénégal. Et plus particulièrement les Achelébouans. Ces hommes-là, mes chers amis, ces hommes-là, c'est des hommes il incarne une nouvelle politique citoyenne basée sur des valeurs politiques, sur des valeurs en politique que sont l'éthique et la vertu, l'engagement patriotique, la compétence et l'égalité, le respect des valeurs citoyennes et le culte de l'intérêt général et Mais mon tout ma cette collaboration sera bénéfique pour tous les Sénégalais cette alliance revêt une importance particulière que les Sénégalais peuvent attendre des lendemains meilleurs et surtout avoir une bonne représentation au niveau de l'hémicycle basée surtout sur la confiance Merci. mbokk yi yi dama ni bu bis ba gis ngeen kayit bii na ngeen ko lem ba mu rafet ngeen dugal ko ca enveloppe ba boo leen di xool kayit bi nag am na góor gu yiwee borom mbaxana mu rafet sañse bu rafet waaw ngeen lem ko lemun bu rafet dugal nu traité dugal ko ci enveloppe bi def ko ci urne bi te bu gën tëj enveloppe bi boo leen ko defee rek yàlla dina ci def jàmm ba keroog ñuy àgg asilem montagne ba si ko donc noonu lañ ko organisé woon waaye ñun def nañ presque deux mille cinq cent kilomètres semaine bii passé depuis dix jours ñu ngi si àll bi moo tax ma ci terrain bi waaye ñi ma ko bàyyee woon gàcce ngaalaama grand pape Samb laa dénkoon xale yi ne ko dugal ma si kër yi waxal ma ak ñoom ñu def liggéey bu man je suis candidat sur la liste proportionnelle

كاسكامات خالي لا واي كان مسكو وخلو نياو في دكبال خالي لا واي يجنا فاج اي بومو غاتي في دكبي خالي لا واي يالا ماي نكو خام خام ما شاء الله خالي لا واي سوبو يلن يالا محمد صلى الله عليه وسلم لولو نك فلان غيني خامي نيس فونكو نانكو ناخ بيمو فونكو سيونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم dañ dugg si biir Sénégal ñun dañoo mujj tiit parce que fu ñu fu ñu dugg si Sénégal rek dañ ko naan yow lañ doon xaar parce que yow mii yaay ki nga xamante ni yaa mën a génne Sénégal bi si guuta man nag magam laa waaye dénk na ma lépp lu mu mën a dénkaate ci coalition bi dénk na ma ko parce que def na ma directeur de cabinet dénk na ma pour que ma coordonné lépp lu nekk ci biir coalition bi

li may wax du ay li may wax du ay gént li wax ay gént ñu ngi ci biir Sénégal dañ fi def Dakar juróomi fan le 26 dañuy duggaat ci biir Sénégal ba le 29 bu dellu si def fi un grand meeting meeting national la ñuy def Dakar le 29 muy meeting de fermeture bi donc HLM.

Nous avons mis les moyens qu'il faut. Nous avons amené les intellectuels qu'il faut. Nous avons mis en place l'organisation qu'il faut. Donc, nous Tchahamini. dinañu liggéey ci législative pour ba l'élection. élection yi dinañu liggéey ba élection présidentielle les di